soxna loolu itam boo seetee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañ indi meññet mu bees mu ñu soog a watte ci garab mu teg ko ci jëxam wala ci kanamam naan waa maanaam lii soog a jógee ci suñu borom ñu ko jëf xam nañ ne lépp lu am suñu borom ko jëf waaye am na yoo xam ne jëfi nit ñi def ci dugg meññet moomu nag garab gi bu ko nit ki jëmbate di ko arrose manam diko soxati tam fofu la ci yam suñu borom a koy màggal ba tour tóoral ko ba génn meññet ni nga xamne defi jëfi bi lennam rexu ci noonu nga xamne jeexit jooju nga xamne day fatali won day teewal ci xelu nit ki ak ci xolam bind bi suñu borom di bind ndax li mu dal di ñëw directement nonu mu ko soppé naka nonu tam ci affaire nisa bi maanaam affaire femme suñu borom daf ci bind mbindeef ci roo muy itam kéemaan koo xam ne day wane tawxid koo xam ne aarifoona billaahi yi rek ñoo koy xam gannaaw yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ñaar yooyu ko ñetteel mu ne wa ju'ilat qurratu fi salaati waaye lii sama bànneex li ma sopp dëgg li ma gënal dëgg ci lépp mooy julli xam ne kon noonu muy teewloo màggu ak xereñam ak bindam ci ñaar yooyu passé yëpp ak ci sellal ak rafetal bind tànn lu ci gën féetale ko fam ko bëgg a féetale ngir la tax ci julli la rawee ndax julli ni muy boole euh, nit ki ak boroomam amul benn jaamu yàlla bu koy boolee ak boroomam moo tax sallallahu alayhi wa nit ki waxtu mu gën a jege boroomam ci dund mooy waxtu mu këppee jëm di la demee bu fekkee jullee ngi màggee noonu ñu seet li ñu waxoon ne jëf béréb ak jamono dana ko jox valeur dana ko yokk valeur boo xam ne xëy ci beneen jamono ak beneen béréb du àgg foofu misaaloon naa ko sallallahu taala wa ci xare badar bi nga xamee ne ñett ci na maanaam ñëfar yi ñett ci nañ jullit ñi yonent bi alayhi demee ca mbaar ñu ko sàkkaloon nekk fa di ñaan suñu borom Abubakar rek nekk fa Saad ibnu Muaaz yor jaasim taxaw ci bunt bi di wër ngir bañ yéefar yi bett ko julli la fa doon def waxtu su jotee ñaan suñu borom rek lay def Ali ibn Abi Talib ay yoon day bàyyi ko ca xare ba ñëw di seet yonent bi salaatu ndax yéefar yi sataxlu ñu ba ak ci moom bu ñëw fekk mu nekk ci sujjóot di ñaan yaa xay yaa qiyum yaa xay yaa qiyum yaa xay yaa qiyum la saxawoon tax na ñu ne yaa xay yaa qiyum tuuru suñ borom mu doy kéemaan la ñu gaaw ci wuyu xam nga sax ñu dem banaan ndax xaddis yi nga xam ne saxal na ne al ismul azimul azam ci ñetti saar yi saar ñetti saar yi bu ci nekk ak xayu qayum ma nga ca noonu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom خمل نكون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم خمل من في برم بل دنكم ماي بخرة دنا دنا خرة بوم ولا بخرة ولدو دجيت نجمة ما نم كرفان بل خمل موجبة سيري jëm màkka te alal yu bari ya nekk ca te ñoom seen alal yi leen tux tuxaloon ba génne leen màkka ñu wacc ko fa yépp nekk fa mu di seen i àq ñu di ko dogale ji suñu borom xamal na ko woon ne benn ngeen dajee karawaan bi moom la ca nekk wala bu ngeen xaree da ngeen gaañ ci xare bi wuñu karawaan ba armée bi la ñu dajal war a xeex ak ñoom kon suñu borom xamal dig na ko ne ko ba tey da ngeen xare bi waaye suñu borom dafa demee noo xam ne sañ-sañam ak mën-mënam ak xereñam ak nameelam jaam mënu koo xam xam na ne waxam du dem mukk waaye mu ngi gën a xamee yàlla rek gën a wóolu di ragal ngir bàyyil ko xàqam ngir teg ko fa ko war a teg noonu itam bu seetee circonstance yu doy waar yooyu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax suñu borom naan ko kuréel bii bi saxaaba yi di xare ci badar waxtu wu ñu alkoo maanaam waxtu wu leen yéefar yi jekkoo ba kenn dootu la jaamu yow suñu borom ci kaw suuf si mu di kon situation bu doy mu diggante bu doy waar bu rëj bu raglu sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ci royam yonent bi sallallahu ak miiru ko ak bari lu mu ko donn ci bi muy julli ñaari rakka ñooñu itam nekk ci situation bu danger ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi ko itteeloon du jëmmam waaye diine ndax bu kurel bobu alko kenn du fi jamu yàlla te jamu yàlla googu moko itel itteel sëñ Tuuba bi nga xamee ne moom it mu ngi wax ne wala al masir ya da jafal fara lil wara misal maharimi ni ñaan na sun borom ngir tukem bobu di faju aajo mbindeef yëpp kenn ku ci nekk ca la cey sa aajo la nga xamné mom nga yello ci mu faju mu xam ni niko seigne Moussa Ka waxee ci Zaw Sakour mu ne budul ko la dem bi wolof nasraanu ta kon billahi yep dem niiraanu nga xam moom mu ngi taxaw taxawaay bu demee noonu bu taxawaayu xekk li bindee fii ba duñu nasaraanu duñu dem safar ngir dox boobu nga xam ne mu ngi koy bëgg a dox te bu ko doxee ba ñëw aajo ñëpp faju lislaam ji taxaw mu nuroo lool kon yonent bi sallallahu alayhi ba mu toll woon ba muy julli di ñaan di wax suñu borom yaa hayyu yaa qayyum yaa hayyu yaa qayyum ak di teewlu ne ci ragalam yàlla ak wóoloo dikoom bi bëgg lislaam ak xam kattan njëfër yi ak ni ñu bare bu kuréel bi alko keneen dootule la jaamu sëriñ Tuuba di julli moom ñaari rakka yooyu di ñaan si borom yoon wi nga xam ne lim ko jubloo mooy xet li bindee fii yoon wi lim ci wuti mu am ko dellu ak jàmm muy njëriñal bindee fi yëpp nga gis kon ñaari rakka yooyu def nañ ko ci circonstance maanaam ci diggante yu doy waar comme ni yonent bi ñi nga xamee ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci yawmu badrin ba mu nekkee ci arish ba mu ngi julli ñaar rakka ay rakka ci jamono yu doy waar moom it ngir xett li bindee fi kii mu ngi julli fi kii yu woo yaa xayu yaa qayyum yaa ngir loolu aajo jooju nga xam ne mooy aajo yu fi fajoo kii itam ngeen جمل بي بدك دي حد آلي يفيق بني يكون بكم سرمدا وجعل مسير يزا جوف الفعال الورى مثل المحارين ولا شيء سلت دا مدي دي أنت مدي دي على السنبرام ndax li muy nekk ci bi muy ñaan li gën a rëy te mooy li gën a lépp li mu aj faaje faje aaje mbindee fi mu amee ngërëmal yàlla li mu ko jagleele mu xaadimu rasul mu di ko sakku ci jamono yi nga xam ne ci la gën a jege boroomam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi waxe muy wax bi muy sujjoot kon li muy sujjoot sujjoot sujjootu lurul ngir njëriñal mbindee fi ndax moom yëkkati na léppam maanaam kulliyatahu ni mu ko waxe tabaaraka taala lahu taala ñu suñu borom léppam la yëkkati jox suñu borom léppam cëram yépp ba ci karam yaramam lépp lu mu yilif lépp lu mu moom lu aju ci moom yëkkati na ko delloowaat suñu borom tabaraka wa ngir sant ko ak ngir xëri ci moom ngir bëgg ko ba gisatul dara bëggatul dara ci kanam yàlla loolu fàttali day waar boo xam ne diggante yooyu nit ñu rëy toll nañ fa fàttali ko bindee fii xalaat ñu seen bopp lu xalaat ñu seen kon ñoom ñaan ñëpp moom sallallahu taala wa sallam ñu gën ci mu def alayhi salaatu wasalaam ak xaadimam dund ko lislaam itteel leen itteel gu àgg xob itteel gu àgg xob jamono yu gën a raj gën a tiir ñu xalaat mbindee fi ngir yéen di di ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne innama ana rahmatun muhdaati man duma lenn lu yërmande suñu borom yëkkati indi ko mbindeef yëpp ñëpp lay seen mbindeef lay seen ngërëm yërmande kon ñëpp lay seen yërmande ak li dul nit luy baaxi ma luy malaayika lépp léegi ndax yërmande ak njëriñam ku nekk njëriñ ñu ko soppante kon waaw ñi nga xam ne màggal julli googu la ci béréb boobu mu ko defee woon def lu am solo na seen yéene wér rek ñu def ko ngir jëmmi yàlla liggéey ko ñu def foofu bu ñu gisee ne gannaaw tawxiid bi nga xam ne moom la làmboo xam bi mu xam boroomam jàpp bi muy jàpp ixtiyaafaat yi nga xam ne ndigal la ak xam yàlla la xamal nañ ko ne bi dem demuloo lu dul ngir liggéeyal yonent bi sallallahu kon da boobu maa bey wan ko xasiida gi ci wax ne ko dem am li may dellu si fekkaat la ci ndar ëllëg mu xam mu wóor ko ne day dem dellu si te day am lu mu doon wuti te kon aajo ngi defi faju teewul wañu wëlbatikuwaat suñu borom di ndax lépp luñ la may suñu borom ay sew sew nekk na ci mbiram ak jëfin yoo xam ne mën na am leneen lu ca def loo xam ne bu ñëwee am lu mu manqué barik ñaan gi ak saxoo ñaan gi xam yàlla rek la ngir bu ñëwee mat sëkk la mu doon barkeel sew sew yëpp ñu remplir ko bañ dara du def loolu tax mu naan al bashir kulliyatahu bi lii suñ borom na nga bëggal léppi yonent bi man ko waxee rek ne ak dundam mbëggum yonent bi sallallahu alayhi wa dem nag mu ngi dem ànd ak roox yi ngi dem ànd ak roox yi ànd xoli ulama wala amiloon yi ak wàllu ak roox yi الصحابة أبي النبي صلى الله عليه وسلم أنا واحد جنب المجنرة حديث له روحي أي أي كل اللي يو خمني دنيا السدلة دفلين أي كل جنب المجنرة ما تعرف من هذا فترة لب لو كي خمن تخيط أنت مرمم ده أن بدي جوجي مجوك تخ ولا يسخت بفهم دنيا دفلين الجمرك kenn ku ci nekk ci ab cër nga ca wilaay bu matee nag jëmm jëpp lay làmb mooy xaw bu ko defee gépp may ak gépp yoon ak gépp tur yàlla ak gépp xam-xam ak gépp bëgg yàlla ak gépp mat bu ne ci kenn ci wàll yi danga boole lépp lépp nga xam ne askanonte gi wooyu askanonte tax na benn jógee ci mat yi mat yeneen ci def ànd di ko gunge yenn yi topp ko علم المناسبة بني واحد بس بس إن ما نحن الإمام المخيز من العربي وإحنا نأكل من جلتي أبو حامد رضي الله تعالى عنه الإمام الغزالي وإحنا دفع جفت قدس بأن كتخ أك بأن باحن يسسلو دي جانيور أمو تكن كوي فري مرامم mu daal na ñaar ñii de askanoonte nekk na seen diggante man a am na rapport am na lu leen boole lu ñu niroo daal wala lu ñu bokkale daal bi yëkkati loxoom ñoom ñaar ñu dox kenn ku ci nekk di soox ñu xam ne kon soox googu moo leen boole naka noonu ilmu munaasab bu ñu ko waxee eh, Muhyiddin wax ne Xasaali ci sangi ak kilifa yi ñi xam ilmu munaasaba ci la bokk dafa am détails yu bari ak xóotaay boo xam ne duñ ca mën a dugg ndax béréb bi laaju ko ci nam gën a gàtte te a leer moo di xol waxtu woo xamee ne set na wecc ba sell doom dootu màndi ci alquran dootu màndi itam ci julli dootu fekk mu mukki ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi bëgg kooku mu koy bëgg bu bëgg gi matee daf koy xëcc moom di ko taf ci moom ruuxam ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi moom ni mu waxee ne du muy dem wax na ko ci asiir googu te booba demagul mu ngi ndar wax na ne du muy dem mu ngi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi naka noonu nga xam ne waxtu woo xamee ne xol sell na ba set waxtu nit ki xam boromam day xër ci ñaan loo tax ñi takkoo di ñaan di ñaan di ñaan rek ci toll takkoo te duñ bàyyi mukk loolu moo ko waral bi nga xamee ne moom mi ngi daataan mi ngi daataan génn këram yonente bi salaatu ne sañi ne ko ba xamal ko ne bul ragal benn lor loolu xam ne ne amul ci sikki sàkk xam ne ne loolu lu am la dara waaye xam yàlla gi mu xam yàlla ak ñaan yàlla di toroxlu ci kanamam ni mu neexee ci moom yooyu yëpp tax na mu toll di sàkku itam yeneen i sañ ak i ñaan ak leneen mu dolli ci ca rek ndax saan wuy dal bu dee benn bu ñaar dikkee ñett dikk mu gën a dal naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon meloom gannaaw ba nga xamee ne suñu borom dël na ko ni ma ko waxe woon léegi kenn ci kuréel yooyu moo tax sallallahu alayhi wasallam ne التوكل حالي والاكتساب سنتي ومن ضعف عن حالي لا يضعف عن سنتي فاتسو مبير وير كو سي يالا باي يالا اك سما بوب mooy sama melo bi ma yàlla binde mën ma ko bañ a def waaye sabablu mooy sama sunna mooy yoon wi ma xotti jaar ci bu fekkente ne doye di nga ba sama melo wow maanaam wakiilu wéer sa mbir yëpp ci yàlla mënuloo ko bul sàggan mukk bul doye di mukk ba mënuloo topp sama sunna mooy sabablu mooy jaar jaar yi sëñ Tuubaa jaar jaar jaar yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon ci kon ñu jullee ñaar rakkaay ba noppi su ñëwee laxas nag waa jëm ci liggéeyal yonent bi sallallahu taala wa sallam nga xam ne mooy royukaay bu màgg ba mooy royukaay bu foor ba nga xam ne lu wuteeg moom rek suñu borom bugg ca dara lépp loo xam ne roy nañ ko ca muy jëf ànd ak sunna am na suñu borom digal moom la bëgg gi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak roy gi ñu koy roy fonk gi ñu koy fonk dafa léppam jox ko léppam mu demee lu jub suñu borom suñu borom xamal ko nag yoon yi ñu war a jaar te mooy yoon yu gën a sopp moo di jaare ci moo tax ma ne dallani allah ala muhammadin wa qaadani muhammadin wa samad ba mu jaar yoonu yonente bi sallallahu wa sallam di ko ci rakka yooyu ba ci dem bi li mu wax bu ne dallani allahu ala muhammadin wa qaadani wa samad dafa waxoon ne dallani allahu ala xayril wara wa qaadani xayril wara ligil wara suñu boroom daf maa tegtalal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ñëpp kooku jàpp sama loxo nit ki demuk boppam ci yàlla li ko gën a wóor mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp loxoom moom la xam ne du juum du fàtte ma nga ca kër dëgg ga li ñu nëbboon ci moom bi ñu nekkee ci at yi lépp ñu feeñal ko jox ko garaat yi médaille yi mu ràngoo ak darajaam xam-xam matam ak ni ko suñu borom soppe ak ni ñu ko bëggee ak ni ñu ko rusee bu wàmmat ba àggale ci suñu borom wóolu ba lu ma tax mu dikkee liggéeyam ba jóge daanam jóge néer ko ni liggéeyam nag li ñu ko fi santoon mu waram ci gis lépp mat sëpp dara desu ca bi mu woyee nag jaabat nga xam ne mooy xaatimatul maqaas maanaam mooy dimut ji bi mu àggee dara mënatu koo weet mënatu koo weete mu ne dallani allahu ala allahi bila taxarrurin wa umuri taqabbala suñ borom moo ma tegtal suñ borom ma tegtal boppam ci lu dul waru du ma ci juum mukk am lenn loo xam ne def naa ko ci njuumte wala ci fàtte wala ci jàng bila taxarur wa umuri te suma dund gépp borom nangu na mu di jaamu ni ma joxe suñ borom sama lépp nangu na sama lépp kon bu muy dem te ànd ak xoli way taxe ñëpp ak ruuxi aarifuna billahi ne tax mu ne masiri ma al axyaari lillahi bi nabi wa ma li li xayrillahi aw bi masir tànnee fi te mooy saxaaba yi gannaaw yonente yi ñoo gën ci mbindee fi ñoom laa àndaloon ak yonente bi salallahu taala wa sallam ànd gi muy ànd ak malaayika gi muy ànd ak yeneen ku xamul tusee xam loolu mbiru du xaw loolu kon ko bañ a nangu waaye ba tey li mu waxoon ne la saatul muydaani laa yuxfiihaa ibaau namlatin sulukan fiihaa lef mu yaatu li nga xam ne ci la fas yi daw bu mellantaani bañee moom bu ci jaarit noonu ñi am gis dañ ko gis ni Moussa Ka di waxee ci jësaw foofu nee na keroog ngelaw bu lam doon ràmbal Jibril la yor gogam ba moom la àndal كيف نعدلو ايه واحنا بالدل في البناوي على النبي صلى الله عليه واحنا مين في خبر دنيا ايتالي في الامام السيوطي ايه في امكان تنوير الحلق في امكان رئيس نبير الحلق من قبل ولما لا نكره waaye nag nit ki bu fekkee ne génn na dikk ne man gis naa jinne ñii gëm ñii gëm ki ko xam ko xam dëgg xam ne nit dëgg la te doful ko li xam na ki nga xam ne it mas la gis jinne dana ko xam ki nga xam ne it jinne am na te fii mënu la ñàkk jinne dana ko xam ki nga xam ne nag nanguwul amul jinne du ko xam ki nangu amul jinne te gëmul ne nit mën na koo gis ñëw di ko du ko gëm kon nag ba tey loolu gis naa malaayika gis naa yonente bi salaa sallam ñi ko xamul bëgg a wedd suñu ko weddi waaye nag bu tey ki ko gis moom ah ki ko gëm ñoom duñ am sikki sàkk ci loolu bu fekkente ne nag euh, loolu waxoon ci ñaari rakkaay yi amee solo ñi nga xam ne dañ koy màggal mu ngi def lu rëy ndax dëgg-dëgg bokk na ci jëf yi gën ci jëf yi ndax sëñ bi ni mu waxee gannaaw julli bu fekkente ne julli mel bi mu doon wala yeneen jëf bi mu doon itam meloo def caa am solo ndax moom wax na li gën ci xam-xam wax na li gën ci jëf wax na li ci mooy wax na li gën ci sikkar tur yàlla kon matal na lépp nee na xam-xam yi bi ci gën mooy tawxid gannaaw tawxid tafsir quran ka xadis la ci gën gannaaw yooyu yëpp nag li lay tax a xam dëgg-dëgg diine xam diine en général mm, waxul rek fiq rek waaye tawxid fiq tasawuf mooy tax a xam dëgg-dëgg diine xam diine nag boo ko defee lépp dugg na ci biir gannaaw loolu nag yi la am jumtuwaay yi la koy tax a xam li gën ci jëf mooy jëf joo xam ne dafa bari ay njëriñ di jëriñ nit ñi ni ki xam-xam di jàngale di yeete ak jëf joo xam ne day sel setal xol te mooy jëf ji nga xam ne da nga koo takkoo naka noonu itam jëf ji nga xam ne tiis na ci sa xol nga jëf ko rek ngir yàlla ak li muy naqari sa lépp bokk na ci yëpp tuyaaba loolu ni mu ko misaale waaye li gën li yées ci mooy mooy mooy ku lay fàttaloo yàlla ak mooy kuy wowal xol li gën ci sikkar tur yàlla mooy alquran alquran nag jàng ko euh, euh, traduire nañu lu bari ci Ihya mm, Ulumuddin ci li ci aju ci alquran euh, mën nañ koo am teggin yi ak lii tax na la alxuraan di jëriñe am nañ ko ak ni sëñ Tuubaa fonkoon alxuraan li may waxee ne ca tàmbali ba ne dafa doon dundal valeur yi nga xam ne ñu sàggane woon nañ ko yëpp li mu def doomu adama bi daal mën a nekk na ko yàlla rek itteel te it nag bu mu jàppe diineem lu woyof uh, jiital addinaam na ko jéem a xam na jéem a xam ni koy jëriñ jéem a xam li koy wàññi fu mu toll it nay jéem a dolliku nay seet ñi muy àndal nay seet ñi muy waxal nay seet fi muy dem te nay fàttali ko ëllëg ndax fàtte kat boo ko defee rek loola fàtte la te ëllëg loo moo ëpp doole tey ku yàlla fàtte ëllëg nag te yàlla moom du fàtte waaye day jëflante te yow jëf yi koy fàtte bu ëllëgee danga nga jaaxle adduna yi day naxe adduna géej la day labal nit nit ñi war nañu delloo seen xel te boole seen bopp rawatina jullit ñi dañuy settantal xel yàlla bi mu ko joxee nit dafa bëgg mu di ko jëriñoo alquran ne fi dalika la ayat li wax li qawmin yaqiluuna li qawmin yatafakkaruuna li qawmin yuminuuna yëpp kon borom xel yi day waxal xel am na solo du lépp nag ndax am na fu mu yem foo xam ne wax yu rek moo ko mottali place wax yu rek bu nu jaawale buñ fab xel teg ko place wax yu buñ fab wax yu teg ko place xel kon wax yi bari buñ ko dee àttee suñu xel daanu mooy diine ndax yeesal Seydina Abubakar dafa فإن ديننا مبني على النقل لا على مناسبة العقل دين من يسوسي تهل يعني دون يعني دون يعني يعني تبين يعني واي دول الله حمد لله موجود تسخل رك لا يعرفني مو دين دون أن الله لا يتحجم دين بقول خلف كيس بران خل رك كن يلا دو يعني يعني كن نجيب كنك بلا سخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا دي نجت لا دي لا نجين ما كفك يلا دغل ما نكتي خط خط آه، ا بنوبي بري بري نكت سما خل سيد سيد سما خل saasi ko ak yàkkamti gi fekkoon na xëy na yeneen jamono ji yeneen la man naa cee wax tuuti lu wuuteeg lii wala ma waxee neneen waaye nag eh, yàlla na yàlla may dund ak fan gudd ak wér-gu-yaram ba li ñu bëgg a def yëpp ñu def ko incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa